ne ñu ngi nuyu seen sëñ Cheikh Abdou Gaynde Fatma ne te di ko ziar euh, ne bi ñu yegsee itam ne suñu xarit ne suñu doomu ndey ne ma dikke ñaa ne fekk nañu fi ne moom mi ñu ngi koy nuyu ne di nuyu ne mbooleem kilifa yi nga xam fekk na fi ñoom ñépp ne tey nag ne président Ablaye wadd ne moo nu fi yabal ne ñu ñëw fii teewal ko ne indil ko ab ziyaaraam ne ci si Abdou mi ne ndax président Wade ne amul lu dul Serigne Cheikh ne ndax tey jii ne ñu demee bay tudd PDS ne Serigne Cheikh la ne kon tey jii. ne di doomi Serigne Cheikh Gaynde Fatma. suñu fi waroon a ñëw benn tànk. ne suñu fi waroon ñëwee benn tànk. ne ñaari tànk lañ fi ñëwee. ne président Wade wax na ni. ne mu ngi feddali kóllëreem. ak Serigne Abdou. mi ngi koy xool itam. ne mi ngi koy xool itam. bi nga xam ne. ne bët bi nga xam ne. ne moom la doon xool sëriñ Cheikh Gaynde Fatma. ne doon ko xool li soxna May. ne loolu tax bi bis bi amee. nee démb mu wooñu euh, ne wax ni nañu def une forte délégation. ne àndandoo. ne ñëw. waaye suñu ñëwee nag. ne ñoo nil ko nuyoo. ak ziyaar. ne sa xarit. ne sa taalibe. ne Karim Wade. ne ndax bii ci guddi. ne woo na nee mu insisté lool nee ngir ñu ñëw nee te bu ñu ñëwee dañu indi wàll délégation bu mag nee ndax bii bis dafay bis bu rëy nee kon sëriñ bi ñu ngi lay sant nee di la gërëm nee di la ziar nee jërëjëf. Euh, sëñ bi kàddu yi dana gàtt kàddu taalibe yu ñëw di ziar si la. soxna si nag yàlla moo nu booleeg moom ba nu nekkee étudiant murit maa ngi la koy wax léegi si sëñ Mahfouz ñu bokkandoo di fa demandoo yàlla def mu bëggal ma boppam ndab yi ma mujj yàkkal jotuma ko delloo si faf mu wàcc liggéey mu ñëw nag soxna baali matal sëkk loolu yàlla xam na ni soxna si ba mu fi jógee ba tey néew na ma toog bés boo xam ne joxuma ma ko addiya boole ak moom soxna may pour wane ni nu toll sama xol bala may ñaanal samay waajur bopp sax ñoom laa see jiitu wax man bala may ñaanal sama bopp bala may ñaanal sama waajur waa kër sëñ tubaa sëñ tubaa laay ñaanal waajuram yi laay ñaanal njabootam di soog a ñaanal samay waajur di soog a ñaanal sama waajuru bopp ndax moo man si man lu sama waajur manul moo man si sama waajur lu ma manul sama waajur ko su ma jaaralee ñaanam dafay nangu ba mu yomb lool nan ko comprendre noonu la gën sama waajur sëñ Tuubaa ak man li gën si man sëñ Tuubaa ak man moo tax bala may yëkkati sëñ Tuubaa lay jukk jublu kon tànk kóllëre yooyu Cheikh Abdou mi di sunu xarit di sunu doomu ndey di sunu sëriñ ñu fas yéene sunu digganteeg moom jëmale ko kanam <laughs> incha allah sëñ bi di ñaan nag nga ñaanal si bu baax a baax ndax fa yéene na jëmale sunu diggantee ma kanam tey bi nu gisul soxna baali cër bu daan ko boole ñaari cër dafa amoon suñu cëru bopp si moom ndax moom bëri na ay mbir yu bëri yu nu digaale mbir yoo xam ni sax concerné na PDS gi ma bokkoon jataay bi dina xat ma nettali ka waaye bëri na mbir yu bëri yu nu diggaale bëri na sama mbiru bopp yu nu diggaale kooku amoon na cër si waaye nag tey cër ba dafa yokk ndax tey tey dafay am cëru soxna Baali ak cëru boppam buñ koy jox ba mu mat sëkk. di leen sant yi ak takku gi ngeen takku jàppale ko ci bis bi nee di am mbégte lool nag nee mi nga xamee ni sunu kilifa sunu waajur fekk na jotaay bii ndax ñoom ko dañ fee daje rek. ne sëñ Cheikh moo jëkk a ñëw diggante président Abdoulaye xanaa fii de fi ngeen di jubóo la te ëtt ne moom xam na ko Abdoulaye Wade yónnee tey bu fi yónnee tey ne am na loo ci def ne yaa fi jëkk indi fii président Abdoulaye ne naka jëkk itam. cey yow. atul Serigne Touba. jàmbaar nga de. day muy kër goo xam ni ñëpp a ko bokk. waa kër Serigne Touba yi. ndax fii kër Serigne Touba la. nee moom day wax ni. nee ba may tëdd. ak toog bi may toog saal bi. laa li ci des. lu neex waay na def. nee du ma ñëpp sama gi ndax moom moom maa ngi ñëpp ci yëpp nekkoon sëñ Cheikh mi ngi lay sant bu baax kàddu rafet yi ak jotal gi nee di mboolem kilifay PDS yi nga àndal nag nee sëñ Assane Ba mënu ko ñàkk a tudd ak sëñ Assane Mbacké wax nga dëgg sëñ Assane Mbacké honorable député ne moom itam séeram la ndax njaboot sëñ Cheikh la mi ngi leen set di leen gërëm di leen yóbbante rek ci président Wade ak Karim ak cantam si ñoom ndax amuñu lu muy bis bii kon nag bu demee nii kon bu demee nii ngeen def délégation bu doy nii ngeen def délégation bu doy nii dikk tey dikk tey te man fukki fan te mat na fukki fan. ñëwoon nga bokk ak ñun nga bokk ak ñoom yi ñu doon def. nee loolu day tegtale ni. bis bi yitteel na ko. bis bi yitteel na ko. soxna si ñor na ko. soxna si ñor na ko. njaboot soxna seet bàyyi. nee njaboot soxna seet bàyyi nañ ko xel. dellu tegu ca. dellu tegu ca. la mu seq ak Serigne Cheikh. la mu seq ak Serigne Cheikh kay defaat. nee kon ngeen santal ko maître Abdoulaye Wade bu baax. bu baax. ne ko. ne ko. ñu ngi koy ñaanal yàlla. ñu ngi koy ñaanal yàlla. may yàlla may ko wér. ñu ngi koy ñaanal mu aw fanam. mu aw fanam. ñot aw fanam. di ko ñaanal yàlla. di ko ñaanal may ko jàmm. mu may ko jàmm. ak boole ak njabootam. ak boole ak njabootam ñëpp nekk benn nag. kon nag nekkoon nag. bëgg nañ lool. bëgg nañ lool. kii di maître nag. nee kii di maître nag métti ki nag. moom itam fi dëkk ci kër gi. nee ma dikkee ñaan ci kër gi nga dëkk de. doomi soxna may. nee doomi soxna may nga. bi soxna si nekkee. nee bi soxna si nekkee. bu soxna si musaan ñëw Dakar. bu soxna si musaan ñëw Dakar. guddi gu yàlla sakk. guddi gu yàlla sakk. ànd ak soxnaam. day ànd ak soxnaam. yendu ay booli. yendu ay booli. bu ñëwee. bu ñëwee. mboolem taalibe yi ak dayre yi. mboolem ak dayre yi. mboolem si soxna si noonu lay def. mboolem si soxna si nekk bis boo xëyee noonu ngay def. kon ne kon ma dikkee. yàgg nga ci kër gi. man maa ngi fàttaliku. ne moom bi ñuy gën a nekk ndaw. bi ñuy gën a nekk ndaw. ne nii nekk ay am dafe ne booba soxna si yow la leen boole loon moo nag sëñ Cheikh na yàlla yàlla yokk leeram bépp bépp dossier bu ñu mës a am bépp dossier bu ñu mës a am ku ñu mës a eh, ñàkk jubóol ku ñu mës a ñàkk jubóol ciy wax ne yow la leen di boole ngeen am ne kon loolu yàgg na ne loolee nga seq xool sëñ Mourou Cheikh ko soxna Bari ne teraanga ji nga fi indi yóbbu ko H&M. H&M. asalem ne mën naa ne màggal bi yëpp xaj nañ ci kon ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla yàlla bu guddal sa fan may la wér na la sa bëgg te may la jàmm nga xam ni daal fii daal moom kër soxna may la di kër sëñ Tuubaa taalibi Serigne Touba kon ngay taalibi Serigne Touba di ko tuddoo foo nekk fu ne kon xam ne kenn ëppale wu la fépp ci yem fépp foo ci yem yaa ko yemal sa bopp ndax bépp cër bu la soxna si joxoon ndax bépp cër bu la soxna si joxoon nga def nii nga def boole cër yi jox ko boole cër yi jox na ko na nga xam ne cër yooyu boole nañ nañ boole cër yooyu delloo la ko kon xamal ni sa kër la di ñaan nag di ñaan nag naa ko loolu na mooy yàlla jubalewaat mooy yàlla jubalewaat nu sëñ bi loolu daal lay ñaan. yàlla na nu yàlla jubale. xam naa sax maanaam dëngu amul. nee dëngoo sax amul. xaj na politique rek moo demee noonu. politique rek moo demee noonu. waaye waaye réew mi. waaye réew mi. sëñ mi nga baal ma loolu rek kàddu gu. neex nga baal ko rek kàddu gu mu ci bëgg a def la. dafa dafa soxla. dafa soxla. ay parti politique. ay parti politique. yu dëgër yu dëgër. loolu ndax loolu mooy taxawal démocratie mooy taxawal démocratie bi moo koy suuxat moo koy mooy tax ba mooy tax ba ak nooteel ak nooteel du mën a jóge ci benn côté du ma a jóge ci benn côté dem ci beneen dem ci beneen réew day dox ci équilibre réew day dox ci équilibre équilibre bi nag équilibre bi nag bu parti fragile bu parti fragile dafay dafay nasax nee dafay am moo tax moo tax ngeen mënta jubóo itam bu ngeen mënta jubóo itam kenn ku ne ci yéen kenn ku ne ci yéen yàlla ko yàlla jox lu dëgëral yàlla ko yàlla jox lu dëgëral dëgër ba mën a taxaw réew mi ba mën a taxaw réew mi mën a taxaw askan wi mën a taxaw askan wi ba ñu mën a jëmale réew mi ba ñu mën a jëmale réew mi ci kanam lii daal mooy liggéey lii daal moom mu leen di yéene di bég loolu ci daje di bég loolu jubóo gi nag mbàkke mën naa yaatu sax ba Macky Sall bokk na ñëpp jubóo rek ah <laughs> waaw waaw ah